bëgg a fàttalente ci solo si nga xam ne liggéey am na ko waaye li nga xam ne kii liggéey war na koo bàyyi xel sàmmonteeg moom kay liggéey lu it lam war a bàyyi xel ca koy ka koy liggéeyal war a sàmmonteeg moom ngir liggéey bi mën a am barke liggéey bi mën a nekk jaamu yàlla xam nañ ne liggéey moom dafa bokk ci li lislaam soññee lool soññu jaam ñi ñuy góor góorlu ci fàggu lu lew góor góorlu ci sabab lu jëf luy tax ñu mën a am <coughs> lu lew lu ñu dunde suñu boroom digle ko ci barab yu bari ci alquraanul karim yonent bi aleyhi salaatu soññee ci moom it ci barab yu bari suñu boroom moo ñu xamal ne moom day mooy wërsëgal ab jaam waaye jaam bi moo war a fàggu moo war a dox moo war a def yitteem ci suñu boroom wërsëgal woo ko wërsëgal mu mën caa mu mën a fàggu lu lew wax ne lii tax nit ki mën a liggéey suñ boroom moo ko tàggat tàggat doomu aadama jox ko ay kàttan jox ko mu xel waaye tàggatal ko suuf si ba man cee liggéey <coughs> lu jariñ huwa allazi jaal lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi sidna ibnu abbas radiallahu anhuma nettali na ci jële ci yonte bi alayhi salaatu wassalaam wax ne képp koo xam ne dafa yendoo sabablu wala mu fanaanee sabablu loo xam ne ci lay sukkandiku pour mën a dundal boppam suñu boroom dina ko jéggal yonent bi salaatu wasalaam waxaat ni it ne amul nit ki jëfandikoowut lu gën ci moom lim fàggu ci loxol boppam maa akala ahadun taaman qat xayram min an yakula min amali yadi wax ne suñu yonente ba di daawud alayhi salaam da daan jëfandikoo li nga xam ne moom la daan fàggu ci ay loxoom wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaan yakulu min amali yadi ñu gis alquranul karim di ñu nettali ci yonent yi waaye di waxaale kenn ku nekk la nga daan liggéeye nga xam ne dali yàlla cër bi leen yàlla jox muy mission jàllale li nga xam ne moom la leen yónni teewutoon kenn ku nekk amoon nga métier moo xam ne ca nga daan fàggoo li nga xam ne moom ngay dunde aadama alayhi salaam daana bay daawuda alayhi salaam daana tëgg di defar ay mbubbi koŋ sayidna muusa alayhi salaam gis nañ alquran di ñu nettali daana liggéeyal nitu yàlla ku baax kooke ah, juróom-ñetti at ñu di ko fay ca la muy liggéey waaye gis nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi sangu ñépp daana sàmm daana yaxantu loolu lu muy tegtale rek mooy solos nit ki am lu muy yëngutu loo xam ne dana ca fàggu lu lew lu mën a sàmme ngoram mën a koo sàmme diineem sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu gis nañ yitte jim joxoon liggéey ak solo sim ko joxoon fàttali ñu ne liggéey jaamu yàlla la liggéey ngir am lu lew loo dunde farata la ni julli nekk farata woor nekk far nekk ko farata mu ci daan yar ay taalibeem daan ko digle daan ci soññee bu baax a baax ba tax na ñim doon yar ñépp ñu xame leen ci liggéey jàng ak liggéey ak jaamu yàlla ni ko suñ bàkke waxe woon ca way wa suñ bàkke busu ne laa yaarifuuna siwa xishiyaani masjidihim aw darsi alwaahim wal xarsi bil jaradi ndax sëriñ bi yim ñuy diggal ñuy liggéey di ñu ci soññ it wax ñu ne farata la dafa bëgg kenn ku nekk am lu lew loo xam ne mën nga cee sàmme sa ngor waaye am lu lew loo xam ne moom ngay dunde ndax la ngay jaamu yàlla suñu borom nangu ndax maase nañ boroom xam-xam yi wax ne nit ki bu dee dunde lu lewut la muy jaamu suñ boroom du ko nangu laa yanfaul ilmu wala al ibaada bil akli lil xaraami inda saada moo sëriñ bi di ñu wax ne na ngeen fàggu lu lew waxtu wu nekk ndax ci dunde lu law ci ngeen di mën a amee ak njub ci la topp yàlla di jàppundee ci yéen bari na ko am jafe-jafe ci topp yàlla ak càggante not ko la ko waral mooy xëy na lu lewut loo xam ne moom lay jëfandikoo ba loola dox digganteem ak topp yàlla loola dox digganteem ak jub moo tax mu ne waxoon ne iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa te liggéey mooy tax as gor mën a moom boppam mën a jaar fa mu bëgg a jaar ci diggam ak boroomam jaamu yàlla te dara du ko ca mën a jële du toroxlul kenn ngir lu mu am du kenn du ko sant gàll ko loo xam ne dëppawut ak ngorom dëppawut ak diineem ngir lu koy jox walla fu yoon wum koy jaarloo ndax bu xësee am lum jàpp am lu lew lu muy dunde day daal di mën a moom ngorom mën a doylu walif li nekk ci loxoy bindee fi ba kenn dootu ko mën a jaar fenn foo xam ne dangay jënd ngorom te liggéey sëriñ bi da ci daan yare ndax ñàkka liggéey muy tayeel ak bayliku dafa doon loo xam ne jàngoro la juy lor nit ki ci diineem waaye di ko lor di ko lor ci dunduk àddunaam moo taxoon sëriñ bi di wax ne ñàkk liggéey loxoy toog loxoy neen ak sànq ak dund ci loo xam ne amul njariñ jàngoro joo xam ne day lor la amal bitaalatu wa tadiu l umur bi gayri fi gayri ma yaani fadaauhu yadur kon nag jaadu na ñépp gën a lu gën a fonk liggéey bi ñuy def xam ne ak jaamu yàlla la ñay liggéey lu it xam ne lañuy def moom it day dugg ci ak jaamu yàlla lay tax nag mu barkeel sakkan doon ak jaamu yàlla goo xam ne suñ boroom da koy day fay ka koy def faw ñu am yuñ ci sàmmoonteel fawu ki nga xam ne day liggéey mu am lum sàmmoonteel ci liggéey ba ngir liggéey ba nekk jaamu yàlla lam cay jële mën a barkeel liggéey ba muy liggéey ñam koy liggéeyal man caa jariñu yooye nag la ca jiitu mooy nit ki war na liggéey bu muy liggéey mu man ko man bu wóor xam ko xam gu wóor ndax loola suñu boroom subhanahu wa taala bam ñuy nettali ba sayidna Muusa alayhi salaam eh, di liggéey ka ko doon liggéeyloo lam ca doon seet mooy man la muy liggéey waaye boole ca wóor kon al quwa wal amaana mooy man la ngay def xam ko waaye di ko def ci anam goo xam ne gu sell lay doon goo xam dara ci wuruj du ca nekk dara ci wane lu nekkul dëgg du ca nekk dara ci naxe du ca nekk loola day waru gar woo xam ne dafa war kiy liggéey ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne képp koo xam ne ma ngay liggéey di ca dugal di ca rax dara lu ca bokkut wala di ko doxale noo xam ne dëppoowut ak nam ko war a doxale kooko day duñ ko limaale ci jullit ñi kon kay liggéey la jiitu ci aw war garam mooy mu man la muy liggéey xam ko waaye wóor ba du ca wuruj du ca rax lu ca bokkut moo taxoon ci alquranul karim suñu borom di nettali waxi soxna sa ki doon wax waajuram ne ko jël ko liggéeyloo ko ndax inna xayra man istajartal qawiyul amin te loolu seetlu nañ ko ci inna Muusa mii ndax fañ jaar ba agsi fii loolu la wan wan nañu kàttan man dana man li nga koy defloo waaye wan nañu jikko yu rafet wan nañu ak wóor ak dëggu kon waaye warugar wi njëkk war kay liggéey mooy la muy liggéey mu man ko lamu laaj ci xam-xam ak man-man mu am ko waaye la ca topp bu ko amee ba noppi nag bu koy def mu def ko ci ak sell bañ caa dugal ay wor bañ caa dugal ay naxe bañ caa dugal li ñuy wax tricher waaye bu ko dee defit mu def ko ci anam gëm gën a rafete gëm gën a mate gëm gën a selle ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yàlla dafa bëgg kenn ci yéen bu dee liggéey la muy liggéey mu xereñe ko def ko ca anam mu mate gëm gën a mate inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu kon loolu ab soññee la ci kuy liggéey la ngay liggéey na ko man waaye boo ko manee boo koy defit it ca def sa yitte ba mat sëkk mel na nga xam ne moom la liggéey ba laaj أشهد أن محمدا رسول Bismillah حي على الفلاح الله أكبر kon war na ci moom bu dee liggéey ginnaaw ba mu manee la muy def mu ànd ca ak wóor akuk dëggu akuk sellal ndax loola mooy tax mu rafetal aw wutiinam te nag rafetal sa aw wutiin dafa doon loo xam ne yonent bi alayhi salaatu koo digle ndax nee nit ki bu yàkkamti wërsëgam ba tax mu wute ko noo xam ne ak mooy yàlla da cay nekk ndax wërsëg moom li yàlla bind ci jëb da doomu aadama bi faw mu jot ci balaa génn àdduna kon na ngeen rafetal seenu wutiin te xam ne dogal yépp mu ngi ci loxol suñu borom subhanahu wa taala loolu njàngaleem yonent bi la kenn ku nekk war koo bàyyi xel ci ni ngay liggéeye ca na ngay wute yonent bi wax na ne laa yastabti anna ahadun minkum rizqahu fa inna jibrila fi rawi anna ahadan minkum lan yaxruja min addunia xatta yastakmila rizqahu bu kenn ci yéen yàkkamti wërsëgam ndax jibril def na ci sama xol ne wax na ma ne yankiiwal na ma ne kenn ci yéen du génn àdduna lu may mu jot ci wërsëgam wa yàlla wa ko yàlla bindal kon nag fattaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen ragal yàlla te rafetal ni ngeen di sàkkoo bu kenn yàkkamti wërsëgam ba tax mu koy wut ci anam goo xam ne ak mooy yàlla da cay nekk ndax wërsëg ngëneelul yàlla la te yàlla du jox kenn ngëneelam ci kaw mu di ko moy waaye nag ki nga xam ne mooy liggéey lu moom it lay tax lañ koy liggéeyal barkeel mu jariñoo ko war naa sàmmoonteeg li ko yàlla digal ba wàccoog àqi ka koy liggéey ka koy liggéeyal te lislaam dafa bëgg nit ki ka koy liggéeyal bu noppee na mu ko na mu sonne ca liggéey ba la ca war lépp ci ay àq koy liggéeyloo moom it taxawe ko jox joxe ko ko te la jiitu ca àq yooyee nga xam ne suñu boroom da ko jox ab liggéeykat mu war ka koy liggéeyloo mooy lañu dége muy fay gam ko war a fay mu mat sëkk dara bañ caa manqué lépp loo xam ne nit ki liggéeyloo na ko doomu aadama ñu juboo ca ci ay kàddu lañ juboon a fexe ba wàccook moom jox ko ba mat sëkk ndax ñàkk fay nit ki la ngeen dige bàkkaar bu rëy la boo xam ne li ci ni ci ni ko yonent bi tëkkoo néew na lum mu tëkkoo ci loolu ndax nee na am na ñett ñoo xam ne yowmal qiyaam maay taxaw xuloog ñoom ñett ñooñee da bokk koo xam ne dafa jël nit liggéeyloo ko ba noppi bam liggéeyal ko lañ diggee woon lépp mu bañ koo jox la ko fay ga nga xam ne moo ca war salaasatun ana xasmuhum yowma alqiyaamati minhum rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yuctihi ajrahu kon loolu àq ji jiitu daal mooy nit ki la mu diggee ca ka koy liggéeyal lam ko lam lañ juboo saa bu liggéey ba noppee mu jox ko ko ba mat sëkk du yam ci jox ko ba mat sëkk waaye li yonent bi digle mooy na gaaw ci jox ko ko nit ki buum la liggéeyal ba noppi nga di ko dawloo tey ëllëg suba ngoon loolu bàkkaar bu réer la moo taxoon yonent bi alayhi doon wax ne ki lay liggéeyal saa bu noppee ca lam lay liggéeyal balaa aw ñaqama fendi nanga ko jox àqam awtul ajira ajrahu qabla an yajifa araqu bokk na ci li war kay kiy liggéeylu it la muy jox ka koy liggéeyal doon lu jaadu ndax liggéeyloo nit liggéey bu diis man ko ca jox ak ju mat sëkk nga jox ko ca lu néew ndax xëy na kooka jafe-jafe yu nekk soxla sum am ba loo ko jox rek mu liggéeyloo la ba tax nga jaare fa fay ko loo xam ne jaadiwul ca liggéey ba loolu lu mat a moytu la nit ki ku koy liggéey loo war nga koo jox loo xam ne yàlla na ca liggéey ba mu man koo jariñ mu man caa dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na wax ne ñi leen di liggéeyal jàpp leen ne seeni mbokk lañ yàllaa leen teg ci seeni ron ay loxo te koo xam ne mbokkam mi ngi ca ron ay loxoom nag na fexe ba di ko dundal ca la muy dunde di ko solal ca la muy sol loola kon mooy na ko jox ak xam waaye bul yem ci jox ko ak xam waaye boo ko mënee jàppale dimbali ko ba mu am dund gu teey dund gu méngoog bi dundug doomu aadama loo ca mën nga jàppale ko ca moo xoon ne ixwaanukum xawalukum jaalahum allahu taxta aydikum fa man kaana axuhu taxta yadihi falyutimhu mimma yaakulu wal yulbishu mimma yalbas bokk na ci li war kiy liggéeylu it mu bañ a togg nit ki loo xam ne attanu ko maanaam teg ko liggéey bu diis boo xam ne xam na ne lii mënu ko mu teg ko ko ba nga xam ne mën naa am mu loroo ca loolu it lu mat a moytu la ci kii kii liggéeylu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne bu leen togg ñi leen di liggéeyal loo xam ne da leen di ëpp doole ca saa bu ngeen leen toggee lu diis it na fexe ba jàppale leen ca wala tukallifuhum bi ma yaxlibuhum fa in fa in kallaftumuhum fa ainuhum waaye fexe ba it ki nga xam ne day liggéeylu ka koy liggéeyal saa bu demee ba tële mu fexe ba jàppale ko taxawu ko waaye nit di la liggéeyal dooleem jëpp mu def ko ci liggéeyal dem ba tële rek seen lépp diggante daal di jeex jéematoo xam ca la muy dunde dara jafe-jafe yi muy am ci wàllu faju ci wàllu dund lépp dootoo ca bàyyi xel dootoo ca jëm dara loolu bokk na ci li nga xam ne kuy liggéeylu ku nekk war nga koo bàyyi xel fexe ba ña ngay lu feeg yaa ngi koy man ñoom suñ mënatut it nga am foo leen féete di leen taxawu di leen di leen dimbale loolu sayiduna Omar radiyallahu anhu joxe na ci misaal ndax am na benn yahud boo xam ne da ko romboon muy yalwaan di tàllal loxoom mu mel ne da ko jàjji ngir tere ko la muy def waaye ba mu gëstoo la tax muy yalwaan dafa daal di dellusiwaat xam ne kat kii ku daan liggéey la ku daan joxe lempo yañ daan teg ay moroomam daana ko joxe waaye dem ba tëlee tax mu loru bay yalwaan waaye Seydina Omar dane ah yow day maandu suñu digganteek yow ndax ba ngay man ñi ngi la doon jël ci yow ay galak di jël ci yow ay impo bi nga demee ba néew doole ñu neenal la daal di digle kii kat nañ koy jox ci baytul maal lu ko doy loola kon ab bind la boo xam ne li muy tegtale mooy kuy liggéeyloo doomu aadama mu nekk ca liggéey ba ay at ba tële dab ko ca war ngaa fexe ba di ko jàppale yooyu kon am njàngale la moo xam ne lislaam da ko jàngal jullit ñi kay liggéey mu am lum ko sant ci wara man la muy liggéey di ko def ca anam nga gën a mucc ayib waaye dugal ca sellal bañ ca dugal daray wuruj waaye ka koy liggéeyloo it jox ko ak ba mat sëkk te gaaw ko ko jox te bañ koo togg loo xam ne lu diis lay doon ci saa bu tëlee mu jàppale ko loola day tax liggéey bi barkeel ca kay liggéey waaye barkeel ca kay liggéeylu te nag barke lu mat dabu la ci ab liggéey ndax nit ki danay liggéey di am lu baree bari waaye du xam fu mu koy jaar ndax ñàkk barkeel mën naa am nam koy wute moo sellut moo tax lam cay am lu lu mu bari bari mën na koo bañ a jariñ nga gis koo xam ne lu néew lay am waaye ma ngay dund dund gu tey xel ma dal ay aajum yépp di faju loola mooy barkeelu lam doon liggéey kon loolu lu mat a bàyyi xel la ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba kenn ku nekk la war nga def ko kenn ku nekk lay àq joo a jooxe nga jooxe ko ci suñu boroom defal ñu barke defal defal xéewal yu yaatoo yaatu te tasaare jàmm waaye ñu ko ñaan subhaanahu wa mu yàggal fi suñu kilifa gi moom Mouhamadou Mountakha te yokk ko wér ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi muy léggéey ak naal yi mu naan te nu yàgg fi ba ànd ak moom ba mu sottal lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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

الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه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 أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه وأنهاكم عن اتباع الهوى qad dalla man ittabaca hawaa wa amurukum bi tacjiili tawbati qabla an yabluga al ajalu muntahaa waclamuu yaa cibaad allah anna man dakara allaha dakara وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واعروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت fala xawla wala quwata illa billah wa saara diinu gariban kama kaana mubtadaa fawaa asafa waa qillata xiilata fi yowmin tadharu fihi alfadaixu wa tashhadu calayna fihi aljawaarixu والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من الشقاوة جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفيه أيضا inna allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuuba musii'u nnahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyli xatta tatluca shamsu min magribiha الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواهظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون صغروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaama salaatu allahu akbar allahu akbar سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها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 Allah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 asalaamaaleykum